melni ITS ku melni Tiada ku melni benen association ak benen ñaata personne ñaata membre comédien ño fa nekk léegi ñooñu tay bu defu ñu won théâtre lan lañuy dem defi ñen ñi mën nañu bon ñen ñi dem di agresser ñen ñi dugg ci gal gi dem parce que lolu lañuy bañ ba taxna ku nek yaa ngi créer pour xëc nit ñi ñu dugg ci métier théâtre mais nak ku ci dugg di gis sa papa yi wala sa mami wala sa magi ci jaar am situation bu ñu mujjee da ngay mujjé ragal ñu ne kon nan leen jug taxaw boole suñuy tànk boole suñuy loxo doon wenn say créer association bi muy UDAC muy union pour le développement des artistes comédiens bu ñu waxee union rek bàyyiwuñu kenn tey bépp membre boo xamante ni yaa ngi UDAC yaa ngi ci beneen association yoo xamante ni association de théâtre la te yaa ngi biir UDAC kon ñun tëjuñu suñuy porte porte bi dafa ubbeeku ñun li ñuy liggéey ak li ñuy lijjanti si pour tous les comédiens yi fan yële am na benn autorité bu ñu recevoir foog naa wax naa ko fa nee naa ko quota bi ñuy ut ci ay terrain wala ay kër suñ ko jotee association yooyu yëpp membre UDAG yi bien vrai ñoom ñooy ñi nga xamante ni ñooy priorité mais yeneen association yëpp kenn ku ci nekk UDAG dina la jox sa quota ne la lii yow yaa ko moom kon li ñu tax a jóg mooy un comédien un toit comédien bu ci nek da war wara am kër soirée bi nga xamanteni ci lañ jëm ma ñëw ci muy le 10 février ñu ànd ceeg l'ambassadeur Keba Sek mu nek mu nek soirée bo xamanteni c'est musical mais c'est théâtralisé da fay am théâtre da fay am musique te jour ba dinañ gis lu doy waar muy soirée bo xamanteni dina am mise en scène bo xamanteni ni kenn mësu koo gis ci Sénégal soirée bi nak le 10 février lañ ko japp concept soirée bi lu ko waral mooy ay fonds pour ñu mën a créer cité comédien yooyu moo tax ñu ne un comédien un toit noonu la soirée bi tudd may wax ni ñu ngi ciy woo ñëpp képp kuy autorité ñu suñu bunt moo xam pouvoir nga bokk moo xam opposition ak foo munti bokk ñun nous sommes indépendants parce que kenn ku ci nekk am na fu sa xol nekk moo xam ci wàllu politique la wala ci leneen ak leneen mais li wax lancer appel di surtout les autorités sénégalaises ñu wax leen ne association bañ kenn di ci ay bureau di problème di ñaan kon leen ñu ngi jàppale ay yeneen nit yoo xamante ni tey ay nit kese lan du sax association ndax dégg nañ ba tàyyi président de la république Macky Sall wala keneen ak keneen ci euh, ci autorité yi wala ci gouvernement bi ñu ne diw jox nañ ko tant de hectares wala diw jox nañ ko temps de kër wala dégg nañ fi ay cent mille logements est-ce que comédiens yi bénéficié wu nañ ci amul ah kon nag jot na ñun ñu jóg xar suñu tànk tuga tànk tànk tubay Euh, jigéen ñi takkaat seeni sër ñu góorgóorlu bu baax ci liggéey bi ba le 10 février bii di ñëw ñu ne pare nan ah amagum nan actuellement 100 millions wala 200 millions nan fexe def coopérative ñu am suñuy kër yoo xamante ni ñun ñoo koy defaral suñu bopp ku ñu ci fekk si nag bëgg na muy sponsor muy partenaire muy muy muy bonne volonté muy autorité moo xam euh, ak ONG yi képp koo xam ne ak association yi bàyyiwuñ kenn képp ñëpp lañ bëgg ñu fekk ñu ci atteindre suñu objectif. objectif bi en grosso modo mooy un comédien un toit mm-hmm. ñuy remercier bu baax la présence de Keba Seck mm-hmm. euh, ci conférence de presse bi. aussi ak lim ñu yombalee le 10 février

on est ensemble parce que nous, chaque jour nous avons ñu téléphone nous nous avons une interview Et nous aussi dañ la koy accepter kon tamit nous ngi remercier bu conférence de presse merci beaucoup. parce que depuis avant avons le théâtre muy avons law bi nga wax ci jàppalante mënta ñak parce que on n'est pas là pour nga am war ma mëna dimbali dimbali wu ma nga am war ma war ma mëna a jàppale mu moom dima di dima xol di mhm. nga mën ko wala bok ngay xaar mu ñëw ci yow té nga war ko mën def te tax mhm. un comédien un toi ba mu waré am dafa yagg mhm. suñu borom yàlla na yàlla dogal eh, li ngeen ko mebet ni sumb ko man xam ci lu bari ndax Souleymane Ndeye sama xarit lool ci sama mag sama rek ma xam aussi lim leen yéene. Mm-hmm. Souleymane talul dara dul yéen ñi. Mm-hmm. xam ngeen ko mais boo koy confirmé. Mm-hmm. talul dara dul yéen li yéen tuwul bopp moom waxi yéen yéen yéen yéen ko ñu dëgg yàlla ma xam ci lu bari nag wax dëgg yàlla tey nag eh, yéene googu mu yéene nag. jot googu mu am ngir yéene leen ko. te di leen ko ñaanal. daanaka suñu borom jotale. parce que nag dafa jot nag wax dëgg yàlla. comédien bi nag war a à l'aise mhm. Mhm. parce que bu nekkee à l'aise ci télévision bi ci site yi mhm. euh, ma ngi ma ngi maa di nuyu la presse donc bu nekkee këram di ree ba takkaajoo ak fa mu ko fekkoon wala ku nekk ci hôpital bi bi am lu mu def jékki-jékki ñu wan ko tan boobu ku mu mën a doon wala ñu fàttali ko suñu yaay Ramatulaay nay mi ak ñeen ñi ma ci xam mu xool xolam sedd mu féex loolu amul prix. Mm-hmm. ba tax na man à travers ma voix damay woo autorité yi. Mm-hmm. gouvernement bi moo xam pour mën a gouverner. Mm-hmm. il faut ñu bàyyi xel comédiens yi handicapés yi ak ñeneen ak ñeneen. yaa ngi wax autorité rek mais kiy jaay kiy jaay gerte ca gerte. kiy jaay beñe ak ku mën a doon dafa bàyyi xel le diis bi ci bu fekkee xam na wala déglu na sens bi tax ngeen jóg. Mm-hmm. location yi yaa ko wax dafa métti. Mm-hmm. xam naa ci dara dama yàlla baal ci ma koy wax parce que am naa ci mille cas. Mm-hmm. yoo xam ne huissier moo taxaw. huissier. moo moo leen di taxawu. duñu xam fu ñu jëm. léegi imaginel yéen su ngeen théâtre woon c' comme les footballeurs du monde. ñooñu bu defoon football kon xam euh, lu ñuy def kon semence bi gën a bari. waaye léegi nag comme un comédien la un ay waay ngir yàlla kiy jaay gerte xeebuñ ko mm-hmm. pour le 10 février mu jënd billet participer ci toiwu comédien bi mm-hmm. day participer ci kër gi nga xam ne comédien bi mën na ko am te da mm-hmm. bi yàlla na ci yàlla yóbbu jàmm bu jël temps bi yëpp xool sedd na xool sedd na man nag incha allah ma wax mais diggu la dinaa bàyyiwaat xel leneen lu ci lu ma nañ la. maa ngi leen di fay bu baax a baax a baax a baax. seen initiative ci UDAC li ngeen jël di c'est bon initiative bu rafet la donc man yàlla def na ni bi ma adhéré ci. Euh,

malgré ñu ngi liggéey mais parfois suñu métier du ñu ko may te tey initiative bi nga xam ni moom la UDAC euh, andi muy un comédien en toi yaakaar naa ni ñun dañ koy rafetlu déjà mais je pense que sénégalais yëpp dañ koy rafetlu donc loolu noonu bokk na ci li tax ma gën cee non seulement loolu mais social bi nga xam ni aussi ñu ngi koy def ndax euh, comédien bu feebar tey UDAC dina dajale membre yi mu am yep kenn ku nekk yëkkati sa ben 1000 francs ñi am plus yëkkati ko joxe ko ñu jël ko dem dimbalé ko ki nga xamanteni dafa fébar donc association la bo xamanteni li nga xamné ni moy objectif am selon man mi nga xamné ma maa ngi soog dugg moy que ben comédien wala ben acteur culturel bu yëngatu ci walu théâtre du amati problème bay laaj fenn dara. est-ce que vous ne voyez pas que c'est un peu trop tard am na ñu bari ñu nga xamante ne nii nañ seen bakkan ci manque de moyens ba après ngeen door a jël initiative waaw c'est pas trop tard. ndax li tax ma ne c'est pas mooy àdduna lépp loo gis rek benn benn la ndax euh, su ma lu ñu yàgg xeex la xëy na UDAC dafay soog a ñëw taxaw andi loo xam ne nii jàpp nañ ni moom mooy yoon bu baax bi jàpp nañ ni moom mooy yoon bu baax bi et que am nañ ci yaakaar bu baax a baax trop ndax ñi nga xam ne nii ñoom ñoo fi jógee te euh, soxla woon soutien wu sénégalais soxla woon soutien wu peut-être artistes yi soxla woon soutien wu peut guvernement gouvernement euh, yàlla mayu leen ko mais dañ koy sante yàlla bu baax baax a baax ndax nit ki li nga war a am rek moom ngay am li nga war a dund ngay dund bis bu yàlla tuddee ni sa bakkan fi la war a rotee foofu lay rotee mais nag je pense que idak jug na et je pense que mooy choix bu baax bi. théâtre démb ak théâtre tey mu mel ni ute na ñu gis ni lu ñu ci ëpp ci théâtre yi léegi euh, gis ngeen solo bu rafet la ñuy xool ak li nga xamante ne nii moo di taar par rapport ak bu njëkk ba suñu yaay yi ak suñu maam yi nga xamante ne ñu ngi doon def théâtre dëgg wane culture euh, Sénégal euh, dafa changé carrément lan ngay wax ci loolu waaw théâtre ak téléfilm du ben déjà ñu bari dañuy def erreur ci côté bobu nonu malgré gënuma leen ko xam mais théâtre ñun en général ñi nga xam ne nous sommes des artistes comédiens ñun suñu théâtre ñu ngi koy développer peut-être fu mel ni fii nga ñu fekk muy grand théâtre wala Sorano peut-être Douta sec, wala peut-être Blaise Senghor en tout cas ñun suñu théâtre bi nga xam ne ñu ngi koy def kenn mënu koo yàq ndax liñ doon dund bu njëkk ba léegi nii moom la ñuy dund mooy répéter pendant des mois yéeg sur scène jouer ko mais par contre bu dee téléfilm la lolu ñun mënuñu ci wax lu bari parce que producteur bi nga xamné ni nii moy mooy produit ak euh, ki nga xamné ne moy scénariste bu bind scénario am li gis ci limu bind ci scénario am acteur bi nga xamné ni nii moy ñew pour interpréter rôle bi lolu rek lay jouer yow nak ça dépend yow en tant qu'acteur acteur yaay xool ne carrément li ni sama ngor ak sama diina may na ma ko ma jouer ko nga jouer ko nga japp ne sama ngor ak sama diina mayu ma ko du ko nga bàyyi mu nga dem xooli leneen pour man loolu rek

ñu koy ketal mbaa artiste bi feebar ñiy dem di demande edd pour dimbali ko léegi UDAG dafa jug taxaw mu ne mu ne loolu tey dafay dakk tey parce que il faut ñu taxawal benn kuréel boo xamante ni dañ ci saytu nekk benn ci sunu biir surtout di dimbalinte suñu biir moo gën ñuy dem di jéggaan ci àll ba ah, di di di di di ñaan dimbal laa looloo war a tax jóg UDAG te suñu jotaay bi tey yi lenn moo ko indi te lenn moo ko waral mooy ñu ne euh, un comédien un toit parce que dañ fi gis ni structure yu bari yoo xamante ne nekk ci gouvernement ñoom au moins dégg nga ci ay cité douane wala cité nangam cité mais pourquoi cité des artistes comédiens looloo tax nag léegi itak jóg nag moom uniquement uniquement pour feex loolu pour am ñoom tamit euh, un comédien un toit pourquoi pas pourquoi pas. ndax euh, nguur gi ñu ngi leen si jàppale. ah je pense bien parce que dañ ne yuuxu.

nga nekk télévision bi génn xam nga di wax lu jëm ci askan bi askan bëgg la sopp la ba pare encore de plus ngay am yenn problème yi léegi nag loolu yëpp nag it ak euh, xool seetu loolu daal ne ñun il faut ñu taxawaat xoolaat suñu bopp pour déem a defaraat suñu bopp xam ñun ñooy kan ah, je pense que nag état xëy na bu déggee lii ak suñu événement bi je pense que dinañu jàppale parce que vraiment on a besoin des cités des des des comédiens franchement looloo tax tey ñu indi initiative bi def ko un comédien un toit mu théâtre bi léegi dañ ko moderniser gis nañu né xalé yi français lañ ciy làkk lu ci ëpp té ñun suñu mami ak suñu yaay yi nga xamné ño daan jouer dañ daan wax olof té fi Sénégal majeure partie bi yëpp euh, dégguñu li nga xamanté ni nii moo euh, français ci mag ñi lan ngay wax ci lool dañ ko moderniser ba yéen gisatoo leen sax seen bopp carrément ci théâtre non cinéma bañul loolu cinéma day wax français day wax jola day wax lépp cinéma bañul loolu xana man mi kon man limay wax kon man modernisation la parce que déjà doomu sénégalais la

war nga ci gis bo parce que déjà bo xoolee Sénégal wolof rek nekku fi langage wolof rek nekk fi war nañ mëna jouer trop couleur wala mëna jouer olof séeréer bambar et tout kenn ku ci nekk gis ci sa bop loolu artiste dé mu nekk lo xamanteni aussi bu ñuy jallalé dañuy jallalé même bu nekké c'est de la comédie mu nekk lo xamné affaire thématique thématique la bo xam képp ki tok di sétane dañ ci gis sa bop parce que loolu moy liggéey comédien dugg ci kër yi génnee li nekk ci bi kër yi légui sagam nak mu ñu mënuñu génnee ñun li nekk ci ñun on est obligé nak léegi ñu créer UDAC def ko benn say yaa ngi dégg pour ñu mën a wax gouvernement ba askan bi dégguñu ko ñun lii lañ bëgg muy un comédien un toit il est temps nag comédien am kër parce que boo xoolee la plus majeure artistes yi comédiens yëpp ci location la ñuy nekk ñenn ñi aussi maanaam nekku métier boo xamante dañ lay fay weer bu dee ci employé yi déedéet des fois da ngay toog année année ngay jóg jouer wala soit que benn ku te boo xool li ci ëpp sax ñu ci bëri transport la ñuy demee uniquement rek pour seen image feeñ. salaamaaleykum Leila nuyu nañu. maaleykum salaam Afi chéri. xam ci initiative bi nga xamante ne waa IDAK jël nañu. dañ koy yéex a def ndax kenn ku ne ci gis sa bopp du par intérêt dañ leen yëpp un artiste un toit kon yemale ñi ci ñëpp lañ ko yemale képp ku ci dugg di nga xam du ay naxe du ay euh, ñu koy ko expliquer maanaam intérêt personnel. c'est la famille ku ci dugg amul réccu man na gaaw ma gëm mais gëm naa tamaan ci biir ci membre laa bokk ku ci dugg sol xo di nga xam waaw. Euh, est-ce que président mi ngi leen di bàyyi xel mi ngi leen di jàppale. kenn gis ñu kenn war ñu volontaire ñu wër suñu bopp mais nag xëy na bu déggee lii dinañu recevoir xam nañu si dëkk bi lañ dëkk te dañoo am kàddu te lu ñu wax dafa neex ñuy yëf dafay neex nit ñi bëgg nañ ñu dañu fa ñoo war a gestu xam ñun artistes yi sonn nañ tey ku ci mel ni kenn koo doon dox tey daje ak moom ngi jël tataawala mi ngi gis car rapide bi pourquoi pas artiste bi di béggale te ñun ñoo békk ñu ne loolu fi jeex nañ bég te jéem a xam suñu bopp suñ avenir ëllëg bu dul tey suñu doom yi ak suñu rakk yi loolu la lan ngay wax ci théâtre démb ak tey. ute na. lan lan la ute. démb yeete nañ am na yar am na teggin mais génération bi suñu classe gi ñun ala ah xam doy